waxtaan wu am solo woo xam ni incha allah ñu ngi ko fas yéene ànd ak suñu ñaari mbokk yi nga xam ni ñoo ñu ko fas yéene defal kii nekk sama ndejoor di al oustaz Khatfaka Seye di ab jàngalekat di boroom xam-xam di ko xam ni ku ñu xam la ci wàllu gëstu ak yëngatu ci lu jëm ci mbiddam sëriñ bi radiallahu anhu kii nga xam ni moo nekk ci suñu càmmoñ di al oustaz musa Wade moom it di jàngalekat di gëstukat ci biir daayira ci biir institut Al Azhar nekk ba Thiès moom it ñëw incha allah fas yéene ànd ak ñun jataay jataay bi niñ ko baaxoo amee la at bu jot dañuy tànn tomb boo xam ni day aju ci bis bi. Euh, ren nag tom bi nga xam ni moom la daayira bi tànnoon ngir ñu waxtaane ko mooy lu jëm ci wàllu ashukru muy sant gi nga xam ni Serigne Touba radiallahu anhu moo ko woote woon ni na ñëpp ñëw santale ko yàlla ci bis yu mag yi loolu nag tax ñu tànn tomb boobu fas yéene ko seq ak ñaari mbokk yi ci ay tomb yu wuute ndax sant googu day loo xam ni lu ama am solo la loo xam ni li tax sëriñ bi woote ko woo ci ñëpp te jiitu ci ñëpp nag loolu kon jar na ñu taxaw waxtaane ko ngar nit ñi nga xam ni ñooy bàyyikoo ci ay barab yi fasantikoo di wuyu si woote boobu ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg woote boobu sëriñ Touba woote ngir ñu santale ko yàlla dëgg-dëgg cant moom mooy lan Euh, noonu lañ ko fas yéenee ànd incha allah ci ñaari pàcc buñ ci noppee asatise yaa ngi fii toog borom xam-xam yi dinañ ci def ay contribution ku mel ni oustaz Mor directeur bu institut Al Azhar bu Ngaay ku mel ni al oustaz Cheikh Mbacke Ndaw moom it institut Al Azhar ñu fas yéene ko ànd ak ñoom niñ ko waxee kon ci jataay bi danañ tàmbali ci pàcc bu njëkk bi incha allah jox ki nga xam ni mooy al oustaz Khat Faké Seye di jàngalekat nekk ci institut Al Azhar bu soxna Maymunatu Mbàkke bi ci Foras su ko defee ci wàllu cant dana ñëw ak ñun ci ñetti tomb yoo xam ni incha allah fas yéene na ko leeral ngir ñu xam dëgg-dëgg solos loolu nga xam ne Serigne Touba moom la woote ba waral nit ñi bàyyi ko fu nekk ñëw fekk si ko ci dëkkam bu tedd bi. Euh, danañu waxtaanal ci tomb bu am solo muy lan mooy ak cant ak bu ñu waxee cant itam yan ponk la am ak yan jumtukaay la ko ci mën a defee ak li ko wuutale ak li nga xam ni mooy li ñu tuddee alhamdu wa shukru maanaam cant ci xol ak cant ci cër lu leen wuutale ak meññet yi nga xam ni cant am na ko maanaam li mën a juddoo ci cant yi nga xam ni moom la Serigne Touba woote ngir ñu defal ko ko ngir jëmmi yàlla su ci jógee itam danañu jàngatal cant googu ni nga xam ni noonu la ñëwee ci téereb yàlla bi muy alquranul karim ni nga xam ni noonu la ko suñu boroom leerale ci biir alxuraan ci ay ay yu baree baree bari ci téere boobu su ci noppee ñëw ñun nag ci euh, cant googu ni nga xam ni noonu la feeñee ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ashukru fi sunnati nabawiyati sharifa kon su ko defee moom oustaz xat fàkka sëy danañu ñëw dana ñëw ak ñun ci tomb yooyu buñ ci noppee nag incha allah ñu soog a jàll nag ci ñaareelu pàcc bi nga xam ni ki ñu koy taxawul mooy al oustaz Moussa Wade nekk jàngalekat nekk adjoint directeur bu institut Al bu Thiès moom itam dana ñëw ci dëgg dëgg cant buñ ko waxee cant gi dëgg dëgg dëggam lan mooy dëgg dëgg cant ci Serigne Touba radiyallahu anhu nan lañ ko mën a déggee cant gi ci sëriñ Touba nan lañ ko mën a déggee waaye itam nan la taalibe yi war a wuysee Serigne bi jàppale ko ci wooteem boobu mooy cant googu nga xam ni daf ko woote ni ñëw leen santale ma yàlla ci bisam bu màgg bi nga xam ni ci la ko suñu boroom defal ndamam lu kawe loolu. ki nga xam ni mooy al oustaz su ko defee kon oustaz yaakaar naa dégg nga tomb yi bu baax ñi bëgg a ñëw ci yooyu su ko defee nga duggal ñu ci dëgg dëgg cant soo ñu ko doon xamleel mooy lan ak yan ponk la am yan jumtukaay la ko nit ki mën a defee waaye itam lu ko wuuteel ak cant gi ñu tuddee alhamdu ak ashukru ndax day ñaari nduroo te am lu leen wuuteele ak cant googu itam yan meññet moo ci mën a juddoo ci ki koy def kon oustaz fal yatafaddal mashkuran bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin alhamdulilahi rabbil alamin nit di nuyu ah, di leen ziyaar ci màggal gu tedd gii ñu nekk nga xamante ni bis la boo xamante ni suñu sëriñ di al abdul qadim sëriñ Tuubaa moo ko woote woon ah, santaane woon ci saa bis bi dellusee ñu di ko ci santale boromam loolu kon doy na sëkk ñu tegtaloo ci ni ah, màggal gi lépp ak cant la mboolem liñ ciy def ak di ko ci wax day dugg ci jaamu yàlla gu màgg gii di ak cant muy ak sukru jataay bi itam ñu fas yéene ci ànd ak Seydil Mudir Serigne di Ndiour ak suñu oustaz Serigne Moussa moom bu ñëwee incha allah a gën a leeral sant wàccuwaay bi mu am ci sëriñ Touba waaye ñun comme ni ko sëriñ sii di waxee ñu fas yéenee ñëw xamle lan mooy cant ak point yi mu wax yëpp euh, cant wax yiñ ci wax bëri na waaye moo di rek li wax al i'tiraafu bi ni'matil mun'im ala wajhil xuduu yàlla xéewal gim la defal nga nangu ko reconnaître ko waaye fant ko ci dana wax itam ni mooy de ne wax irfaanul ihsaan maanaam yàlla suñu borom defal la lu baax wala nit ki defal la lu baax nga nangu lu baax loolu sant ko ci euh, am na borom xam-xam bu ñuy wax ibnu xayim wax na ni sant euh, luy ay xéewal la yoo xamante nii bu la ko yàlla xéewalee dafa war di feeñ ci saw làmmiñ yàlla defal na la ay xéewal xéewal yooyu dafa war a feeñ ci mbir yi ñuy bëgg a tudd dafa war a feeñ saw làmmiñ ngay tagg suñ boroom di ko kañ di ko màggal ci xéewal yooyu mu la defal nga itiraaf reconnaître li la yàlla defal waaye sab xolit di ko seere wala sax say cër yëpp cant ki daf cee war di feeñ naka moo di cër yi dafa war di wommatu ci ak sant yàlla cër yépp nag yàlla defal na la xéewal yi bët ngay gis ci wet gim la defale ay bët yuy gis am na koo xamante ni yàlla dogal na ci moom yàlla mayu ko ay bët kon ngal la sa bët yii na ci ak sant yàlla di feeñ naka la ciy feeñe mooy bët yi dee ci xool lu neex yàlla yàlla defal na la ay tànk am na ko am di yàlla dogal na ci moom mu xañ ko ay tànk tànk yooyu ni ci war a sant yàlla mooy dee ci dox lu neex yàlla cër yépp noonu nopp yi yàlla am na may na la ko am na ko ku xañ dee ci diglu di ci fexee dégg lu neex yàlla moo taxoon Ibnu Xayyim wax ni cant xéewal na yoo xamante ni day feeñ ci làmmiñu nit muy sant yàlla waaye di feeñ ci ab xolam itam euh, muy bëgg aji xéewale ji muy aji yàlla ji yàlla jaam yi mooy aji xéewale ji feeñ ci ay cëram nga xam ne cër yëpp kon dafa war di wommatu ngir sant yàlla ci xéewal yi la yàlla xéewaleel moom cant googu tamit ñu xam ni jikko ju màgg la waaye wàccuwaay bu mag la am ci jaamu yàlla mooy li nga xamante ni yàlla def koo digle tere safaan bi tagg ñi koy def tagg ñi nga xamante ni ñooy santkat yi dem na sax ba melal leen ni ñooñu ñooy ay ñoñam ñooy ay xawaasam mu mel ni sax daf koo def daanaka man nga li mooy li tax yàlla bind nit mu def ko itam muy sababu ndollent muy sababu ndollent waaye itam mu nekk gardikooru xéewal ku am ay xéewal bëgg xéewal yi des del yàlla yëmut ci loolu sax waaye day ñot di ay xéewal yoo ñàkkoon yàlla xéewale na la ay xéewal nga sàggan ba cantoo xéewal yi dem boo sant yàlla yàlla indi laa la xéewal yooyu kon cant daal bu ñu ko doon wax di ko xamle mooy mbir la moo xamante nii nit ki daf koo war a takkoo ah mu nekk loo xam ne day sax ci moom fees ci xolam di génn ci aw làmmiñam di feeñ ci cëram yëpp cant nag yin ko xamle bëri na kon wax nañ ko léegi mooy xéewal yi la yàlla defal nga di ko ci sant zahiran wa baatinan ba pare ànd ak bëgg ak yi xéewaleel waaye itam ci noonu kon bu xamle cant noonu dañ ciy dégg ne cant kat dafa am ay ponk cant dafa am ay ponk mën nañ cee tudd ah, lu demee ni li waxoon ci xamla bi mooy al i'tiraaf bi ni'ma mooy xéewal yi la yàlla defal nga reconnaître ko nangu ko nangu googu nag war laa yóbbu ci nga de ko sant ah, waaye nga di ko waxtaan li ne wax ak xaddus wasanaayi ala al munim mooy yàlla defal na ay xéewal dee ko waxtaane waaye deel tagg ki la xéewale loolu sunu sëriñ Moussa dina ci ñëw nga xam ne loolu mën nga ne mooy sababu maggal gi xéewal yu yàlla defaloon sëriñ Touba defal ko xeet wi ba tey ñuy sant loo sëriñ Moussa ci ñëw kon ku ne gis na itam sëriñ Touba da ci ñëw lu bëree bëri ci ay mbindam kon nga di ko waxtaane dafa bokk ci ponk yi te loolu yàlla ko santaane wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla nee na sa xéewale boroom dee ko waxtaanee beneen ponk bi mooy xéewal yooyu nga jël ko nag def ko mu nekk ak topp yàlla mi la xéewale la xéewal yi cër yëpp na ko jël nga tàggat ko ba cër yëpp di sant yàlla bët yi nay sant yàlla làmmiñ bi sant yàlla xool bi day sant yàlla tànk yi day sant yàlla biir bi day sant yàlla lépp day sant yàlla ah ñu xam ne tamit sant dafa war wàll yépp sant ci wàll yépp la war am na ko musa dikk Tuubaa sëriñ Tuubaa ne ko naka sa soxla sa mu ne ko loola day sant nañ ci yàlla mu ne ko santal yàlla ci wàllu yëpp ak sant du wàllu kon nit ki lu mën di am danañ ci ñëw dafa war a sant yàlla suñu borom tabaaraka wa taala bu ñu wéree dañoo war a sant yàlla suñu wéree di sant yàlla suñu ndaw dañ cee war a sant yàlla suñu màggatee sant yàlla suñu amee dañoo war a sant yàlla suñu ñàkkee dañoo war a sant yàlla suñu féexee dañoo war a sant yàlla suñu nekkee ci ay soxlu yu gën a tarit dañoo war a sant yàlla bu ñu amee nekkee ci bànneex yi gën a neex dañoo war a sant yàlla bu ñu nekkee ci métti di gën a yàlla dee nelaw dañoo war sant yàlla gàmmoo dañoo war a sant yàlla su ñëwee tukki dañoo war a sant yàlla suñu saxee war a sant yàlla bu ñu wéetee ak bu ñu wéetalikoo yëpp dañoo war a sant yàlla bu ñu taxaw ak bu ñu yëpp dañoo war a sant yàlla comme ni Sëriñ woon ak cant du wàllu santal ci wàllu yëpp loolu itam la santaane fa bi muy wax yàlla daawud i'malu aala daawuda shukra maanaa aaya bi kon la yàlla defal yonente yàlla daawuda ci ay xéewal yàlla mi leen jëfe leenu cat ci xéewal yi mu leen jox ci lan ci ngeen koy topp di def ay ndigalam di bàyyi ay tereem ah sant yàlla itam ah ku dee Abdurahmaan wax na ni julli sant yàlla la koor sant yàlla loolu danañ ci ñëw ci wasaay yi waaye bépp yiw woo xamante ni nit ki daf koy def muy lu baax sant yàlla la te nee nag li gën sant yàlla mooy euh, alhamdu loolu nag kon di yóbbu ci ñuy wax ci jumtukaay yi ni sant yàlla bala ñoo ñëw ci lan moo teqale li diggante asukru ak alhamdu ah ñu xam ni sant yàlla dafa am ay jumtukaay yu bëree bëri yu ko mën a defee ah nga xam ni yàlla dañoo wax ni wala boog dañoo digle ni uskuru rabbakum ala ma min jamil wa ala ma min xabiir na ngeen sant yàlla ci fés ci lu baax ak ci li nëbbu ci safaan jumtukaay yi sant yàlla itam bëri na lool a ah, sant yàlla def na ko def ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa ne xam na ne yàlla neewoon na ko jéggal na la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj waaye tëriwul moom daana julli guddi ba tànk nekk suñu yaay Aysa ko laaj lii ngay def fan la xanaa yow yàlla waxul dëgg waaye kon sant yàlla dees na ko def ci julli ndax yonente gi nga xamante ni salaay salaam yàlla nee woon na ko baal na la sa bàkkaar yu njëkk yu mujj da daan julli ba tànk yi nekk suñu yaay Aysa di ko wax ni ko xanaa yàlla jéggalu sa bàkkaar yu njëkk yu mujj mu ne afala akunu abdan shakura ndax du ma doon jaam buy sant kon julli jumtukaayu sant yàlla la koor dees na ci sant yàlla yonente yàlla Muusa alayhi salaam daana woor bisu Ashura lu tax mu daan woor mooy da daan sant yàlla ci musal gi mu ko musaloon ci Firawna ak soldaaram ya yonente bi sax moo tax bi mu ñëwee yahuud yi daan woor bis boobu mu laaj lu tax ñu koy woor mu ne ci la yàlla musaloon Muusa ci Firawna mu digle ni kon nan koy woor ndax ñu ñëw gën a yey yahuud ci yonente yàlla musaa lii rek buñ ci taxawoon kon dañuy am tegtal bu mat sëkk ni cant moom yàlla daf ko boyal képp ku yàlla defal xéewal war nga ko sant ci anam yi mu doon wax kon sant kon dañuy dépassé sax marxalab di ko layal waaye santaane yàlla bu dëgër dëgër la te loolu bu ñëwee sant ci alquran ak yonente yi dana gën a leer si Moussa itam dana ci ñëw sant yi itam dana nekk ci sujjóot li ne wax sujjóotu shukru nga xam ne jullit bi daf koy def su ko ab xéewal dikkalee yonent bi salaam bi ko Seydina Jibril waxee ne ko yàlla nee man salla alayka salaatan waahida salla alayhi biha asran ku julli ci yow benn yàlla julli na ci moom fukk yonent bi dafa sant yàlla Seydina Aboubacar radiyallahu anhu bi mu jotee xibaarum ni rey na Musaylamatul Kazaab dafa sujjóot sant yàlla Seydina Ali itam bi mu jotee xibaarum ni rey na xaariji bi tuddoon Ibnu Sadiya dafa sujjóot sant yàlla Kaaba Ibnu Malik ah, mooy ñett ñoo ñee xamante ni ñoo gàntaloon dem ca xare ba bi leen yàlla baale dafa sujjóot sant yàlla kon ñu xam ne julli sant yàlla la woor sant yàlla la ak bépp yiw boo xam ne nit ki da koy def ngir yàlla sant yàlla waaye nag li gën ci sant yi moo di ashukru ak leen waxoon léegi itam mooy di ko waxtaane te itam nit ki war nay sant yàlla baaw aw làmmiñam di tooy soo xëyee soo gontee del sant yàlla ba saw làmmiñ tooy sant itam dafa bokk ci melo yi sunu boroom yi bokk ci ay turam muy ash-shaakir wa shakuur loolu bëri na ci ay aaye yu koy tegtale inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna allaha shaakirun alim ak inna allaha ghafurun shakuur ak wallahu shakurun xaliim kon ñu xam ni cant dafa bokk ci tur yàlla yi bokk ci meloom te itam yàlla du neenal yoolu kenn koo xamante ni jëf nga lu baax moo xam lu néew la nga jëf ko ngir yàlla rek yàlla dana la ci fay sant la ci jéggal lu bëree bari loo defoon ci ay ñaawteef yàllay sante ab jaamam mooy nit ki dana jëf jëf ju néew yàlla fay ko ci lu bëree bëri sant ko ci jëlee nañ ci abu hurayra ya radiallahu anhu mu nii dafa am koo xamante nii dafa maroon lool bi maree da daa di dugg ci teen bi wut am ndox bi mu génnee gis xaj boo xam ne moom dafa mar bay lekk suuf ndax mar mu ne xaj bii de ko dal li ma dal moo ko dal te loolu kat kenn amu ko ku dul mu'min bi aji gëm ji daan ni bu ko ab safaan dalee mu muñ aw yiw dikkal ko ci waaye su ko bànneex dalee itam mu sant yàlla loolu aw yiw dikkal ko ci kon jullit bi mën naa am ñaari bénéfice su ko bànneex dikkalee mu sant yàlla yàlla defal ko aw yiw su ko ab safaan dalee mu muñ yàlla defal ko aw yiw ñu xam ne itam bokk na ci meññeef yi cant day waral ngërmaanel sun boroom yàlla moo wax ni wa wa in tashkuru yardah soo leen sante ma gërëm leen te ku am ngir maandel suñ boroom xam nga fa nga jëm te mooy aljanna bokk na ci meññeefi fi cant itam garantie la sécurité la ci mbugalum yàlla ndax yàlla moo ni ci alquranu karim maa yafaalulaa bi azabikum in shakartum wa amantum naafiq yi la doon waxal ci ginnaaw bu yàlla waxee ni naafeq yi kat ñoom ñooy doon laytaayu sawara yàlla ni naafeq yi lan la yàlla def seenu lan di def seenu mbugal su fekkente ni tuub ngeen dellu ci yàlla dellu ci dëgg jox yàlla ak xam ji ngeen ko war a jox sant ko ci xéewal leen xéewaleel yéen seen bopp ak seen ñoñ ak seeni doom ba pare wéetal ko ba pare itam jàpp ci buumuk son boroom gi sellal seeni jëf ngir jëmmi yàlla bàyyi ngis tal te ngeen gëm yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëggal ko soo leen defee loolu kon yàlla mu ni maa yafalullah bi azabikum soo leen defee loolu yàlla ne dootu leen bugal estemaang nag jullit bi segem naafiq bi su tuubalee sun boroom nangul sun boroom cant ko ci xéewalim ko xéewaleel yàlla nee na kooku dootuma ko mbugal asamaa ñee xamante si nag yàlla dañoo xéewaleel ñu di ay jullit gëm yàlla gëm yonente bi yàlla dañu defal ay xéewal ñu di ko ci sant ah xattaada raximahullaa itam wax na ni inna allaha jalla saraahu laa yuazibu shakiran wala muminan yàlla sun borom tabaraka wa taala du mbugal aji sant du mbugal aji gëm kon képp ku gëm yàlla di sant yàlla ci lépp lu la dal yàlla du la mbugal waaye ñu xam ne bokk na ci meññee fi santit mooy day waral ndollent wa istazana rabbukum la in sakartum la azidannakum yàlla mu ni su ma leen defalee ay xéewal ngeen sant ma ci danaa leen dolli kon sant dana waral ngërmaaneel sunu boroom dana musale ci mbugal waaye dana waral ndollent su la yàlla dénkee wér nga sant ko ci yàlla gën laa wéral su la yàlla dénkee alal nga sant ko ci yàlla gën laa dolli alal misaal yi bari na yenn salaf yi tam waxoon nañ ni an niam waxsiyatun fa xayiduha bi shukri xéewal yi daa mel ni lu nu boyal maanaam njaay àll gu rëcc goo xamante ni soo ko amoon bëgg koo yeewu xéewal yi noonu la mel nee na nag na ngeen ko yeewe cant ku am xéewal bëgg xéewal yi sax bañ a dem del sant yàlla ku yàlla xéewalil ay xéewal nga bëgg xéewal yi sax di yokk del sant yàlla waaye sa xéewal cant dana waral xéewal goo ñàkkoon mu dellu si ndax bëri waa na ñoo xamante nii yàlla defaloon na leen xéewal ñu bew yàlla xañ leen loola ba ñu tuubee sant yàlla yàlla dolli leen wala joxaat leen la ñu yoroon ba yokkal leen ko bokk na ci tamit xéewal yi wala meññeef yi dana waral ah payuk sunu borom te yàlla moo ni wa najzi saakirin sa yajid lahu waaye itam nag safaan bi dana waral merum yàlla dana waralu mbugal loolu ay yu bëree bëri ñëw na ci waaye ci tënk rek am na ñu ni wax waa saba ab dëkk la bu nekk ci yaman yàlla daf leen a xéewale loon mayoon leen ay tool yu naat ay aljanna yàlla digal leen ñu di ci xéewlu waaye digal leen ñu sant suñ boroom waaye ba leen yàlla dafa leen xéewal yooyu ñu lànk wedd yàlla yàlla yamal ndox mu bari mu yàq seen tool yooyu seen gàncax ga mu def ko dootu ko sax seen ñam ya mu wexal ko xat ngir weddi kooku ñu weddi yàlla am na ci itam ah, ñu yàlla joxe misaal ci dëkk boo xamante ni yàlla daf leen a joxoon xéewal gu yaatu ñu weddi yàlla weddi xéewalam yooyu yàlla taqale leen ak kiif ak ragal wa daraba laahu masalan xaryatan kaanat aamina mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makaanin fa kafarat bi na'mi llaah fa azaaqaha llaahu libaasal juu'i wal xawfi bimaa kaanu yasna'uun nga xam ni nit ñi takkoog seen yéere ginnaaw ba ñu weddee xéewal yàlla yi noonu la leen yàlla takkale ak xiif ak ragal ah, xam naa fi ni mujjee mooy wax li ñuy wax. cant ci alquraan waaye tam cant ci euh, yonente yi ni leen yàlla nettalee ñoom naka la daan sant ci alquraanul karim euh, ku ne xam na ni yonente yàlla nuux nga xam ni mooy yonente bi yàlla njëkk a yónni moom yàlla melaloon na ko nii moom kat innahu kaana abdan shakura moom jaam bu daan sant na muy tagg mu mag yonente yàlla ibrahim nga xam ne mooy baay yi yonente yi moom moom itam yàlla waxoon na ni shaakir la woon ab yàlla da koo defuloon xéewal waaye yàlla nee na bi ma ko defee lay xéewal moom daana ma sant shaakirin shaakiran li an'umihi ittabaahu wa hadaahu ila siraatin mustaqim yonente yàlla Suleymaan moom bi muy xee xool xéewal yi ko yàlla defal xéewal yi bëri lool yàlla tàggatal ko jinne yi tàggatal ko bàyyi ma yi lépp di ko liggéeyal mu ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardaahu wa nii bi rahmatika fi ibadika saalihin moom dafa ñaan yàlla kàttanal ko ngir mu sant yàlla ci xeewal yim ko defal waxoon na itam hada min fadli rabbi li yabluwani askuru am akfur wa man shakara fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim foofu dañ fiy dégg ni yàlla dana la jox ay xeewal di la seetlu ndax xéewal yi mu jox da nga ko ciy sant wala da ko ciy weddi su yonte yàlla Suleymaan moom loolu la xamoon ba moom dafa santoon ci xéewal ko yàlla xéewale loon yonente bi salaay salaam it wala yonente yëpp dañoo xéroon ci fàttali seenu nit wàcc waay bi cant am di santloo seenu xeet yàlla yonte yàlla Huud lu mu aw xeetam wadkuru is jaalakum xulafaa min baadi xawmi nuuxin wa zaatakum fi lxalqi bastatan waskuru ala allahi laalakum tuflixuun lu def ñoo raw xeetam na ngeen fàttaliku ah, kuutal gi leen yàlla kuutal ginnaaw yonte xeet yonte yàlla nuux xeet yonte yàlla nuux dañoo weddi woon yàlla yàlla alag leen yàlla indi ci seen ginnaaw xeet yonte yàlla huut yàlla defal leen kattan nuux huut nag ni leen waskuru ala allah na ngeen xéewalu yàlla yi laalakum tuflixuun ngir ngeen texe yonente yàlla saalex moom bañ na ko ba dafa jàkkaarloo woon ak aw xeetam di leen limal xéewal yi leen yàlla defal xéewali zaahir ak baatin mu ne leen wadkuru is jaalakum xulafa min baadi aadin wa bawaakum fi l ardi tattaxiduuna min suhuliha xusuuran wa tarxituuna al jibaal ah, buyutan faskuru fi l ardi ginnaaw huudit ba yàlla alage aw xeetam aadit bi aw xeetam ñëweet yàlla def leen kuutaayu xeetu yonte yàlla huut daf ni leen fàttaliku leen xeewal yi leen yàlla defal defal leen kattanuk ngeen di tabax ay njënde ay tata di yatt montagne yi di def ay kër waaye nag bu leen dox mukk ci suuf si doon ay yàqkat yonente bi salaay salaam noonu la meloon jàngale woon sant ah sant itam ñu xam ni mooy yàlla njëkk a dénk doomu aadama nit bu juddoo rek aaya bii li muy tegtale ni mooy kon cantaane li njëkk ci jaam bi mooy jaamu yàlla ak sant wa wassayna al insaana bi waalidayhi xamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaaluhu fi aamayni an ishkur lii wa li waalidayka ilayya al masiir yàlla daf ñoo digal ginnaaw bi ñu waxee coono bi suñu wayjur am ci ñun daf ñëw digal ñu sant ko sant suñuy wayjur ah yàlla suñu borom itam waxaat nañu ñu ah cantkat képp ku ko def danga am ngërmaandeel suñu boroom ah, xam naa bu ñu doon topp aaya yi di wax ci alxuraan ak yonente yi ci cant mën naa am dana jël ci waxtu wi lu bëree bëri ndax lu toll ci juróom ah, fanweeri aaya ak juróom-benn ñëw na ci alxuraan yépp di wax ci ak cant waaye dañuy taxawlu foofu di xam ne li doon wax lépp nag nga xam ne moo xam la cant ak ci cant ci wàll yëpp ñu ko war a jëmmale ci ay cër xeet yi cant yi meññeef yi ak ni ko yoon di doon jàngalee lool nag xam naa sëriñ Moussa dana ci ñëw ci jëmmal gi ko sëriñ Tuubaa jëmmal nga xam ne moom ni ma ko defee ah, mooy na ko yonent yaraan defee ni mu ko defee mooy ni ko yàlla suñu borom tabaaraka wa taala santaane loolu xam naa dañuy joxo euh, micro bi sëriñ Sidi euh, mu fas yéene wéyal waxtaan wi alhamdulillahi allazi qad satara ma ibi wa kaana li wa nasara ثم الصلاة والسلام راقي على الذي ارتقى على البراق سيدنا محمد والآل ما غفر الذنب لذي الإنابة mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci gox yëpp yu passanti ko ci biir àdduna bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar euh, te di leen ndokkeel ci bis bu mag bi ñu jëm tey te mu commencé ci guddi gi jëm suba muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar di bis bu mag ci lislam di ci ziare sëñ Muntaqa ayyadahu llah wa nasara yal na ko yàlla dëgëral te bàyyi ko ci suñu kanam bu baax waaye di ci ziyaar tam suñu jëwriñ sëñ Mamor Murtada moom it di ko ñaanal yàlla dëgëral ko ba tool bu yaatu bi nga xam ni moom lay taxawu muy jàng ak jàngale te loolu bu amee rek àdduna jag mais bu amul dara du mën a jag ndax lu taxaw lu nekk rek ci xam la taxawe kon moo tax ñu bëgg a dugg ci tomb boobu comme ni ko suñu mbokk xat fakka di borom xam-xam bu mag leeral ci loo xam ne xam naa dinañ lott sax ci man cee tegaat dara ndax làmmiñam leer na macha allah yal na ko yàlla gën a yokk xam-xam bi yaatu na yal na ko yàlla gën a yokk euh, kon li fi wax xëy na tegaat ci dara dina jafe waaye dañuy jëm rek euh, jël jaanib bi nga xam ni moom lañ ñu wax ñu jéem a xool ñu ci gën a leerale sant borom boobu nga xam ne nag moom moo wax ci alquran ni la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid suñ borom dafa wax ni su ngeen sante ma dolli leen ma dolli leen waaye mu am beneen lum ca teg mooy su ngeen santul kufran googu kufraanu ne am lay firi maanaam ñàkk a reconnaître comme ni ko sëñ xat fakka waxee ci biir waxtaanam ñàkkër ne ndax dafa tafsir dafa leeral cant ñi mooy reconnaître xéewal yi la yàlla jox kon kufraan googu mooy kufraanu ni am su ngeen weddee sama xéewal yooyu ba santu leen ma ci sama mbugal lu tar la moo tax euh, sant dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag yi nga xam ne mu mutasawifoon yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu buñ doon buñ ko doon leeral lim ci dund ak lim ci gàlloog lim ci jël ci histoire humanité gisuñu ku ko gën a dundal tasawuf gisuñu ku ko jox gu gën a jox wàccuwaayam te muy loo xam ne sax xam naa du tomb waxtaan bi waaye lu ñu war a dikkaat la ci àdduna ndax ku nekk xool ne àdduna crise yi bari na ci àdduna yëpp surtout ci monde islamique bi crise yi bari na te dañu xam ni lislaam mujazza ila salas ajja al iman wal islaam wal ihsaan ah, mooy gëm yàlla teg yàlla wàccuwaayam li la yàlla sant nga di ko def mooy sukuru googu ñu bëgg a wax nii ba ca des mooy li ngay def nga di ko def te yàlla tax te sellal ko loolu moo di al ihsaan boo demee nag ci duwalul arab yi ak yenn ñenn ñi nga xam ni ñi ngi dund islaam ñu ci bëree bari dañoo jël ñaari wàll yi bàyyi wàll wi ci des moo war tax ñu yor islaam boo xam ni naaqis dafa wàññeeku moom moo waral it li lislaam war a faj foofu du ko faj ndax dafa am maanaam li ñu naan comprimer bu fekkee dafa am benn dosage bu mu war a am am yu ko war a composé nga jël ñaari élém ah, élément yu ko war a composé bàyyi benn élément ba ah maanaam bi la mu war a def sa yaram ba muy du sax drogue lay doon sa yaram wala toxique lay doon ci sa yaram ndax dafa am benn élément élément bu ci manqué loolu moom moo dal lislaam ci àdduna bi yëpp ci lu ko gox yu bëree bëri kon moom Serigne Touba moom nga xam ne Euh, nit tasawuf yi ak moom nga xam ne moom li ma wax léegi làq na ci ah, fu ci kenn eggul dañoo santaane dañoo soññe lool ci sant ndax lan comme ni ko Oustaz Fakkat Fakka waxee ngir reconnaître xéewal googu nga xam ne moom leen suñu borom tabaaraka wa defal doomu aadama te xéewal googu di wal di ñëw ci doomu aadama ci waxtu wu nekk moo tax Sëriñ Tuubaa di ko firndeel rek ci bayit bi ni wajahtu kulliya bi hamdin wa shakur ila waliyil muminina wa shakur maanaam juble naa sama lépp sama lépp ci hamd bi lisaan ak hamd bil jawaarih maanaam comme ni ko waxee woon sant yàlla ci sama làmmiñ waaye sant ko nag ci samay jëf yi nga xam ni dama koy jëf comme ni ko xat fakka waxee ci ni sant ay akt la ay cër la cër la loo xam ne ay cër ñoo koy jëf waaye alhamdu moom làmmiñ moom moo koy jëf kon sëriñ Tuubaa di waxaat ne lahu alhamd wa shukru alladi la intiha lahu huwa alwaxidu almugni alladi kaffara sëriñ Tuubaa yàlla moomu ñeel na ko sama xamd bi dama koy sant fu ma toll ci sama làmmiñ waaye samay cër yëpp da koy sant ndax samay cër lii ko yàlla binde rek lay def te cër def li ko yàlla binde mooy sant yàlla ci moom comme ni ko xat fakka waxee ci biir waxtaanam làmmiñ li ko yàlla binde mooy dikrullah tudd yàlla xiraatul quraan jàng al quraan tasaare xam-xam digle lu baax tere lu bon Sëriñ Tuubaa léppam ci loolu la woon dundam léppam loolu la bu dee bët li ko yàlla dig li ko yàlla binde mooy xool téere yàlla bi di ko jàng xool lépp loo xamante ne lu baax la lu la mën a jariñ ci àdduna mën laa jariñ ci àllaaxira Sëriñ Tuubaa dundam gépp loolu la kon moo tax mu ni yàlla ñeel na ko sama cant ci sama làmmiñ waaye sama cant ci samay jëf goo xam ne amul daytaal amul fu mu yem ndax moom mooy kenn ki koomoo nga xamante ni lu néew lu ne moo ko baril mooy kenn ki koomoo mooy oomal na ba cant googu boo ko deful lu ko jariñ du ko wàññi dara waaye daf ko yeyoo kon ñun cant giñ koy sant ñun lay jariñ Euh, moo tax Sëriñ Tuubaa di waxaat ni lahu shukru minni mu hamdi li man juuduhu li qaadama axjalal la suñ borom moomu ñeel na ko sama canti jëf sama jëf yëpp dama koy def lim ma sant lépp dama koy def ba teg ci nawaafilul xayraat ngir sant ko cant goo xamante ni nii maanaam du am fu mu yem ginnaaw nag ba ma ko santee ci sama làmmiñ ci waxanteeg moom sant ko ci sama làmmiñ ndax moom suñ borom lim ñu defal ci ay xéewal maanaam gàcceel na lu mu mën a doon lépp loo xam ne waamee la lu mu baree baree bari ci ay xéewal njariñ ñu ne lu mu bari bari suñ borom lim ñu defal gàcceel na loola lu ñu mën a wax moom dafa def cant mu nekk jëmm jëmm joo xam ne moom Serigne Touba ci jëmmi boppam ji maanaam cant bu doon ay wax rek la moom daf koo jëmmal def ko dundam gépp ba mu jeex waaye yéene gu mu yéene humanité bi yëpp jariñu mu xam ne njariñ mi ngi ci sant mu digal ñu cant googu ginnaaw ba mu ko jëmmalee ci jëmmi boppam ji moo tax mi ngi naan kun shakiran li niamil jalili fa shukru baab zaydi ne nanga bul dañ di yow taalibe bi yow jul bi aadam buy xool xéewal yàlla yooyu di ko càmbar dana jafe lool ci mu man koo peeg wa in tauddu ni'matallaahi laa tuxsuha moo tax suñ borom ni ñu xéewal yooyu boo koy xool ba war maa sant wa fi anfusikum afala tubsirun njëkkal la càmbar sa bopp xool sa bopp mais ngay xool doomu aadama bi yàlla may la xéewalu noyyi nga xamante ne mooy li nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk te noyyi googu suñ boroom defal la appareil boo xamante ni nii yaa ngi koy jëfandikoo ci noyyi appareil boobu suñ boroom ci xaraleem defal la ci seggukaay filtre filtre boo xam ne mooy filtre ngelaw li nga xamante boo jëlee ngelaw li noyyi oxygène lu rax ci oxygène bi maanaam karaw yooyu yàlla def ci sa bakkan filtre na ngelaw li ba bàyyi oxygène mu jàll mu téye poussière bi nga xam ne mën na laa gàllankoor ci sa dund bu bakkan bi chargé chargé ba fees yàlla ci xekamam ci mbaaxam mu roof doomu aadama bi mu ne damaa soj fi mu toll màggal gi ñu bari jóge ci dem kër ga damaa soj di jàmbat soj te fekk solution la boo xam suñ borom daf la koo defal ngir solutionner sa problème maanaam mu roof la soj nga sëqat ñaari fan yàlla liggéey benn liquide ci sa bakkan liquide boobu nettoyé ko ngay sëqat ak yu nekk nga def ko ba ba jékki-jékki liquide bi pare nga ni sama soj mi ñor na ngay jëfandikoo sa bakkan di génne loolu liquide boobu ñu koy tudde ñandu yàlla di nettoyé poussière bi ngay ñandu yàlla di nettoyé poussière bi ngay ñandu yàlla di nettoyé bu poussière ba jeexee soj ma wér lu ca tegu alhamdulillah sant yàlla ci di noyyi li Sëriñ Tuubaa wax ixlaa wa abdin nafasan an taa yujibu xasratan lahu fi saa amma ida xallaytaha fi maasiya fa daaka xusraanun mubinun fadriya boobaa nag nooyi googu nag war ngaa ruusati di ko nooyi fu naqari suñ borom tabaaraka wa taala di yàq nooyi gi ci loo xam ne jaamu woo ci yàlla ni ko Sëriñ Tuubaa waxee mais sa yi ngay tëdd guddi gi yëpp ngay xool ba bëccëg yëpp ngay xool yenn yi yàlla dafa la yan yi ñëw obstacle yi ñëw sa bët ngay gëmm mais am na obstacle yoo xam yu sew yoo xam ni microscope moo ko mën a gis poussière yu sew yooyu day jàll di dugg sa bët di percer di dugg su duggee ba guddi jot nga tëdd yàlla ne yabal ndoxam mi mu def ci sa bët yi muy liquide boobu ni ko nettoyal ma sama bëtu jaam bi balaa yeewu rangooñ di raxas di tuur ci biti di raxas di tuur ci biti nga yeewu gis ay laas nga defe ne laas yi salte nii la rek la déedéet kooku suñu borom moo digaloon rangooñ ni ko nettoyal sama bëtu jaam balaa yeewu suba ndax gis bi gën a leer sa bët yooyu war nga cee sant suñu borom tabaaraka wa taala di ci xool lim la xoolloo mooy war ngaa xëy def sa waqful quraan war ngaa xëy jàng sa xasaayid war ngaa xëy di ci xool di rusa xool li yàlla xaraamal wa in nazarat aynaaka ayban fa qul laha ayaa ayni la tubsir wa linnaasi ayun kon waroon ngaa jëfandikoo loolu ba doo ci xool ayib ba bu sa bët naree xool ayib neel sama bët bul xool ayib nit ñi am nañ ay bët yu ñu mën a xoole sama ayib kon buñ ko doon tudd cër për cër maanaam duñ fi jógee maanaam ci cër ci ni am ci xéewal yu rëy yooyu la suñ borom tabaraka wa taala defal kon moo tax sëriñ Tuubaa ne na ngeen sant suñu borom ci xéewalam yu bari yooyu ndax sant mooy buntub leen te mooy tax nga jot li nga bëgg comme ni ko xat fakka waxee ci biir waxtaanam ndekete dara dina la rëcc te fekk ne boo santoon suñu borom mu sax ci yow dara dina la rëcc te boo santoon suñu borom loola nekk doon loo xamante ne luy ñëw ci yow la naka la ñuy taxawee ci jaamu yàlla gu mag googu muy sant yàlla dafa am kayfiya nuñ koy defee xaqiqatu shukri la daa man alima shuhuduna min zil jalali niama nee na dëgg-dëgg sant mooy nga seedeel yàlla loolu mu lay defal bëri na doomu aadama yoo xam du ñu sant parce que li tax duñu sant ñun jàmbat yi bari na trop doomu aadama toujours day jàmbat day xëy suba toujours ba ngoon day jàmbat rek wa qalilun min ibadiya shakur suñ borom nee na ñu néew ci sama jaam ñi ñooñu ñoo may sant presque nag loolu ñun waa Sénégal aaya boobu am nañ ci paar boobu réeréy nasibul asab ndax ñun ñu ci baree bari jàmbat yi bari na lool dafa ëpp doole sant yi kon ñu war di xool nag xéewal yi ñu suñ borom tabaraka wa taala di defal di ko sant moo tax suñ suñ Tuubaa kon dëgg-dëgg sant ci ñu xam mooy seereelal suñu boroom xéewal yim ñu defal seede gi nag mooy di ko jëfee ci suñuy cër moo tax mu ne wa amaloon biha lisaanan wal jinaan wa fii kulli ma yurdi wa rukunan yustabaan cant googu da nga koy jëfee ci sa làmmiñ jëfe ko ci sa làmmiñ mooy lan mooy di ko wax di sant yàlla bu baax a baax di feeñal di tudd xéewal yi la yàlla defal di tudd xéewal yàlla defal ndax damay faral di wax ne ah, doomu aadama da gis ne néeg bi ngay dëkk di fa tëdd yow sa waajur ci maam yi tuuti rek boo laajee sa waajur wu góor wala sa waajur jigéen daan la tagar laa doon tëdd ay bant yu may daaj teg ko di ci tëdd ñeneen ñi ña amoon tane woon ñooy am pajaas ña tane woon ñooy am pajaas pajaas ay ñax lañ koy sole ba mu fees yenn saa nga tëdd mu jam sa digg ginnaaw nga làmbatu di làmb li la jam pour nga mën koo dindi pour mën a tëdd sa doolee lay seral boo tàngee tàngooru métti wi sa doolee lay seral fu doole ji jeexee ser ba jeex sedd ba jeex boo boo tàngee moom sa doole rek mooy uppukaay ngay jël sa doole moo lay saral bis bu doole ji jeexee sarga jeex boo nelawee sarga jeex yooyeeg lépp di la matt waajur woowu buy taw muy senn ci kaw loolu la bàyyi doon dund te teewul ñu daan sant yàlla di dund seen ngor li leen yàlla defoon dara du li leen yàlla sant dara du ci manqué li mu leen tere duñ fa sax jege yow nag niam yi xoolal tey am yi xéewal yi yaatu macha allah yow da ngay tëdd sa néeg lal double lii ngay tëdd bu nooy népp nga xam ne mën ngaa plongé sax jóge ca kaw daanu da ngay bonde da ngay xalangu ba bët set li lay ëpp maanaam dangay tëdd yor commande bi nu la neexee yokk du la neexee wàññi maanaam télé bi da ngay jaaxaan di zappe nu mu la neexee fu la neex ngay xool maanaam xiiwal yi yaatu lool boo paree ndékki laa ngi lay xaar añ bi mat na lépp mat na te boo xëyee ja boo xëyee yaa ngi jàmbat doo sant yàlla mukk yaa ngi jàmbat li la suñ borom sant di ko soxla ci yow bu dee samedi ak dimanche da ngay nelaw ba midi nga doo koo julli suba gi sax suñ borom da ko koy bokkal rek da nga ko koy bokkal kon yow delloowoo yàlla njukkal ndax bëri na ñoo xam ne fi mu lundi ba vendredi danañ julli fajar ndax dañuy liggéey kon yàlla dañ koy xaaj-xajal ci julli gi ndax dañuy liggéey waaye bu fekkee ni dimanche la wala samedi xëyuñu moom dañuy continuer dañuy nelaw ba 10 heures rek ñu yeewu ba yenn saay sax bu ñuy julli dañuy delloo bunt bi pour bañ ñenn ñi gis leen ngir ne kon santuñu yàlla ci xéewal yooyu kon moo tax mu ne danga koy jëfee ci sa làmmiñ ak say cër waaye ci lépp luy gërëmloo borom bi loolu mooy wane ni say cër maanaam liñ ci war a jëf mooy luy gërëmloo yàlla rek nga ci war a def bokk na ca ni ko Sëriñ Tuubaa waxee tawaadoo toroxlu ànd ak toroxlu sa kanamu borom nga toroxlu sa kanamu boroom waaye nag bañ a yambare moo tax nag wa min u fadri eh, takabburun ala al ghaniyi zil kibar loolu luñ koy déggee mooy ki nga xam ne jullit la di sant yàlla tam war naa fexe ba am personnalité ci kanamu ku yàlla may xéewal ku mën a doon bul wàcc sa personnalité ci moom ngir bëgg li ko yàlla jox nga bëgg ca moo tax ab julli dëgg buy sant yàlla dëgg li ko yàlla jox lay xool mais du wàcce mukk personnalité am day yëkkati pe day fo wane personnalité am ci képp koo xamante ni kuy rëy rëylu nga ku la ku yàlla joxe xéewal santul yàlla di rëy rëylu moom day yëkkati personnalité am ci kanam kooku moom foofu noonu lañ koy déggee mais takabur googu duñ ko déggee muy rëy rëylu mais déedéet torox lu sa kanam borom waaye nag ki nga xam ne dafa am alal ba du sant yàlla kooku da ngay feeñal sa personnalité ci kanam bul nangu mukk di wàcc sa personnalité ni ko ñenn ñi di defee nga xam ne ñu baree bari tey borom alal yi tax dootu ñu dégg dëgg parce que dañuy am ay dak ñi leen di wër ñu ci baree bari duñ leen wax dëgg duñ leen wax dëgg lu ñu wax ñu ne est-ce que lu mu bëgg a xalaat sax mu ne ko noonu la bu defee tojaanga mu ne ko noonu la maanaam euh, da ngay xool sax ba ci ñi ñuy gouverner conseil yu bari yi ñuy def te toujours ñu def ay erreur mooy wane ni conseil wuñ leen kon conseil pour la forme la mais pour la fond zéro amu fa ndax koo xam ne euh, milieu milieu éducation da nga ci am nangami conseil milieu santé nga am ci nangami conseil ñoo xam ne agrégé nañ ci loola ba pare te bés bu ne nga dëkk ci di ci juum kon xam nga ni ñooñu conseillé wuñ la parce que sangal si nga leen ëmbal la ñuy xool te bëgguñu ko ñàkk moo tax duñ bëgg laa wax lu la naqari dañ lay dagg toujours Serigne Touba nag ni loolu du sant sant da ngay am personnalité ci kanam képp koo xam ne yàlla da ko may pouvoir wala may ko xéewal muy réeréelu ci xéewal googu da ngay feeñal sa personnalité ci moom Euh, bokk na ca cant googu wa udda min jumlatiha al ixlaasu amalina liman lahu l azxaasu bokk na ca cant googu maanaam sellal say jëf ñeel ki nga xam ne moo moom jëmm yi mooy looy def nga def ko te yàlla tax jullit dafa war a rus sax yàlla lim la defal ci ay xéewal ngay def benn jaamu yàlla goo xam ne keneen day tax ku dul yàlla wala ngay feeñal sa jaamu yàlla ngir keneen tagg la wala keneen kañ la te du doon suñu borom tabaraka wa taala kon bokk na ci di sellal say jëf ngir yàlla waaye mel na waaja rek ah xëy na mbayan la wala sàmbeen boo xamante ni bëgg na nit ñi gis loolu li muy jëf ah mu nekk ci jàkk ji di julli rek di julli rek gars yi fekk ko fi ah waaye jiw moo mën a julli waaye moom day jaamu yàlla rek mu génn ne moonte loo ci xamul koor de laa ci boole loo ci xamul koor laa ci boole kon kooka bokkul ak ki ñuy wax kon kooka moom daa mel ni jaamu yàlla gi dafa bëggoon nit ñi nit ñi xam ko ba bañ apprécier li ñu xam mu bëgg leen a leeral li ñu xamul te loolu bari na lool léegi léegi da nga gis tànt boo xam ne ka fay taxaw di wax wala kañ ni mooy kilifa ga ma ngay leeral jaamu yàlla ibaadaat yi muy def ma ngay leeral daanaka li muy defal yàlla lépp ma ngay taxaw ci tànt ba di ko leeral wala ma ngay taxaw ca mbooloo di ko leeral ngir mën a gañe ci ñoom mën a siban aliya place yu kawe wala mën a am wàccuwaay ci seen xol wala nga gis koo xamante sax danañ ko rabbal sax ba waxal ko loo xam ne defu ko ngir mu mën am manaasib aliya ci kanamu nit ñi kon loolu maanaam du ngir yàlla kon cant dafay ànd ak tamit li ngay defal ngir yàlla ndax cant ay ibaadaat la ay ibaadaat yooyu def ci cër yi li la ko yàlla sante waaye danga nga koy sellal def ko ngir yàlla comme niñ ko waxee woon ni cant jëf la aye bi sëñ eh, xat fakka indi na ko ndax suñ borom ba muy digal waa kër dafa ni leen jëf leen cant kon cant dañ koy jëf muy sukkur lu ñuy jëf la waaye xamd moom lu ñuy wax la alhamdulillah mais shukur moom lu ñuy jëf la ci ay ci ay cër mooy i'malu ya ala daawud shukran lillahi kama aataakum wa dalika bi taati wa imtithaali amrihi maana aaya ba mooy yéen waa daawuda yéen ñooñu daawuda jëf leen sant yàlla ci li mu leen jox ci def leen ngeen di ko topp waaye li mu leen def ci ay xéewal ngeen topp ko te tax te jëf ay ndigal suñu borom tabaraka wa taala kon cant lu ñuy jëf la moo tax sëriñ Tuubaa di ci soññe ba tey nawaytu shukuraka fi dal yawmi ya samadi yallaahu dal ayni xabla rai wa chini man de yéene naa man sëriñ Tuubaa sant la ci bis bi yow mi nga xam ne yow la ñëpp cublu yow mi nga xam ne yay borom arash yow suñ borom yéene naa la sant la ci bis bi taqabbal wa zid shukri wa zid madadi wajaal shukuriya bushra xurakal ayn mu ne ko yow suñ borom li bàyyi ko ci yow nangul cant gi nga xam ne dafa bàyyi ko ci man te nga dolli cant googu ci man malay sant fu ma fu ma mën a toll waaye cant googu nga fay ma ci dolli ma xéewal yoo ma mën a jox dolli ko te defal sama cant gi muy bégu ñooñu nga xam ne mooy soxna yooyu nga xam ni préparé nga ko jullit yi muy xéewal ci ñoom te nga waajal leen ci àjjana lahu shukuriya ilal jannaati daaril muna wal amni wal minnaati suñ borom daal sama cant duma ko arrêté ci moom fu ma toll maa ngi jëf cant googu ba ba may tabbi ajjana ga nga xam ni mooy këru sécurité waaye mooy këru maanaam may ya may dëgg boo ko bëggee dem boo ko bëggee am demal ca ajjana waaye cant googu nag dañ ko séddale Sëriñ Tuubaa da koo séddale tam ñetti parti dafa am cant goo xam ne moom la ñuy wax cant goo xam ne moo mooy daraja bi gën a kawe daraja aliya am na cant goo xam ne mooy alwusta moo nekk ci digg bi mais am na cant goo xam ne mooy bi gën a féete féete suuf moo tax mu ni lahu ladal xawmi thalathu darajat oliya wa wusta suma duniya bi thabat nee na boroom xam-xam yi dañoo séddale cant googu ñetti daraja bi kawe bi diggu doomu bi nga xamante ni nii moo gën a féete suuf bi kawe mooy lan oliyaahu an taabudahu ijla la bi féete kaw mooy nga jaamu yàlla parce que nee nañ cant jëf la li ngay defal yàlla nga defal ko yàlla ngir màggaayug suñu borom bi na rabi euh, rabi al adawi doon wax ni ko yàlla ma la ngir ragal bëgg ajjana jaamuwuma la ngir ragal sawara waaye dama lay jaamu ngir bëgg sa jëmm ji bëgg sa jëmm ji rek moo tax ma lay jaamu kon sëriñ Tuubaa ne bi gën a kawe ci xeeti cant mooy li ngay defal yàlla danga koy defal yàlla ngir màggoog suñ borom bi nga xamante ne bu la ko suñ borom digalul woon sax te nga xam ne neex na suñ borom liñ ko def ngir màggal suñ borom nga xam ne yoo defoo ko ngir am loo ci yaakaar wala loo ci xalaat waaye tey fi mu toll boo doon jox ab ay dog ay dog nga koy joxe ne dog bi ñaari rakka la ngay julli ñaari rakka yooyu boo ko jullee boo paree yàlla dina la fayee lam lay fayee mooy tàbbi àjjana boo lëgee waaye beneen dog bi mooy téeméeri rakkaa la yooyu naafila yoo xam ne boo ko naafilaat di nga ci def salaatu ala nabi junni yoon waaye soo ko defee balaa semaine bay jeex nga am un million daan ni dajale nit ñi nag informé leen ko ni leen benn rek ngeen ciy mën a jël ku jël bii doo jël bi ci des yaakaar naa ni boo amoon téeméeri nit juróom ñeent fukki ak juróom ñeent yëpp téeméeri rakkaa yi leen julli def salaatu ala nabi junni ngir am un waaye ba nga xam ne ñaari rakkaa rek la tey doxe nit àjjana duñ ko def kon daanaka bëri na ibaadaat yoo xam ne jaamu yàlla bi jaam bi mi ngi koy def te lu ci baree baree bari maanaam day xam day lum day am lum ci yaakaar ci àdduna rek bëri na ñoo xam dañ naan la waa xasida gi nga xam ne dalay may ab moom day tax nga gaaw a am soxna ban la su ko defee moom la ñuy durus xasida bi nga xam ne doo ñàkk dépense ban la su ko defee boobu la ñuy durus maanaam booy de boo joxee boo boo ci tuddee xaalis rek ak ñàkk ak am am wërsëg wala wér wala nangam rek werd yooyu nit ñi dañ koy laaj lu baree bari waaye xam ne da koy def ibadatan lillahi tabaraka wa taala ah, topp yàlla ak jaamu ko ak dab ngërëmam kese kese maanaam doo ci bëri ay partenaire kon ndekete sant gi gën a kawe mooy boo xam ne da nga koy def ngir màggal jëmmi suñu borom bi waaye bi diggu doomu mooy da nga koy def imtisaalan li awamirihi mooy da nga koy def ngir taqoog ndigali suñu borom yi suñu borom digal na la nga jaamu ko nga sant nga nga nga nga nga taqoog jaamu yooyu fexe dara du la ci raw fexe ba salawaatul xams dara du la ci raw ca waxtu yo nga koy defee weeru koor dara du la ci raw soo manee aji màkka aji makka li la suñ borom digal daal dara du la ci raw ndax digal na la ko kon di ko def waaye bu la ko digalul woon doo ko def li la suñ borom tere tamit maanaam da ko bàyyi parce que daf la koo tere mais su la ko terewuloon da nga gis ni du lu ñaaw doo ko bàyyi kon loolu mooy mooy bi digg doom waaye bi nga xam ne moo gën a féete suuf nag mooy nga jaamu ko lan ngir lan ngir bëgg lan ngir yaakaar nga ni boo ko jaamoo bu ëllëgee mu tàbbal la ajjana soo ko jaamoowul bu ëllëgee mu tàbbal la sawara mu ni boobu cant mooy bi gën a mooy bi gën a bi gën a néew doole noon la ko Sëriñ Tuubaa séddale kon te boobu tamit mooy li gën a yaatu mooy li gën a yaatu ndax ñu baree bari bu ñuy jaamu yàlla dañ koy jaamu ndax dañoo ragal mu dugal leen sawara bu ëllëgee waaye bu ñuy moytu mooy yàlla tam dañ koy moytu ndax dañuy ragal bu ëllëgee mu dugg leen sawara waaye jaamu gi tam dañuy yaakaar bu ëllëgee mu tàbbal leen ajjana mais bu ci ajjana amul woon sawara amu ci ñoom duñu jaamu yàlla mukk du ñu jaamu yàlla mukk kon sant su fekkee dimension bii la ko Sëriñ Tuubaa jox séddale ko noonu nga xamante ne nii nit kiy jóg di ko def war na li muy jaamoo yàlla mu di ko def ngir jëmmi suñu borom ji tax parce que doomu aadama dafa war a rus li ko yàlla defal lépp ci ay xéewal li ko yàlla defal lépp ci ay njariñ te li tax moo indi ko ci àdduna defal ko xéewal yëpp tàggatal ko mbindeef yëpp ngir mu sant ko rek la mooy ngir mu jaamu ko ndax nee na binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma sàkkuwuma ci ñoom leneen lu dul ñu jaamu ma kon jaamu googu mooy sant yàlla gu wér gi dëgg dëgg dëgg kon moo tax sant comme daraja bu kawe boobu la am kon nan lañuy ñuy wuyoo Serigne Touba radiyallahu taala ci sant gi nga xam ni moom la woote ñu santale ko suñ boroom tabaraka kon dañoo war a niñ koy wuyoo mooy dañoo war a taqoog bu baax a baax a baax arkaanu shukr yi nga xam ne xat fakka leeraloon na ko léegi ci li jiitu duñ ci jaaraat di guddal mooy ponk yi nga xam ne sant mënu koo ñàkk pour mën a nekk sant yàlla gu wér waaye tam ponk yooyu dangay ngay fexe ba li ngay sant yàlla mu ànd ci waaye noonu sëriñ bi séddalee santam nga fexe ba bokk ci ñi gën a kawe mooy li ngay defal yàlla nga di ko def ngir jëmmi suñu borom ji tabaraka wa taala waaye tam ñu wuyu ñaareel ba mooy ñu woote sëriñ bi ci bis bii nga xam ne bisub sant yàlla la muy màggal gi bu pare nag mu doon loo xam ne tajriba lay doon ci ñun xam ne dafa war a sax dafa war a sax foowee ñu santale ko yàlla ci bés bi bu ñu demee ba suñu kër jëf yi ñu fi doon jëf ñu jàpp ni dafa war a sax dañ koo war a saxal mooy Sëriñ Tuubaa nim ñu digale ñu santale ko yàlla ci bés bi mooy lim waxoon ci màggal guddi gi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi izdiyaadul minnati li muxlisin muazzami maanaam màggal guddi yonante boo koy def nga koy màggale ci ni xoolee safar gi ak ni mu wàccaay yooyu yëpp am na ci ndax yàlla sant ci lu ko naqari yaakaar naa ni deesu ko sant ci lu ko naqari da koy mooy dana dog am mbedd xool woykati àdduna yi nga xam ne dañoo dañ ne dañuy woy sëriñ bi wala dañuy wax ci yoon wi nga xamante ne am peccakum tëgg rek la ñu teg ko xale yi wër ko waxambaane yi wër ko jigéen ñi wër ko ñuy fecc lool di def lu naqari suñ borom ba ngoon jot nga wax leen ñu ni dañuy safar maanaam dañuy wuyu wooteeb sëriñ bi ndax ñooñu wuyu nañ wootam sëriñ bi ci loolu kon loolu lu ñu war a jàngat la te bari na ah Cees jéem a dëkk day tasaaroo na fa lool ba pare tam sëriñ bi waxu la ni yalwaanal sant ma def ko ci cant gi danga gis koo xamante ni oto buy jàll danga taxaw ci kanamam sukk ci kanamam baare ko ba yenn saa yi sax mu jox la juróom wala fukk yoo xam ne jéppee tax mu jox la ko nga ko ne da nga koy jënde café ndax dangay da ngay bendeele ci bés bi yow defoon digalal sëriñ bés boobu kon war nañoo xool méthode bi nga xam ne ci la ñuy woo wooteeb sëriñ bi ci sant yàlla googu bu baax a baax a baax ñenn ñi dañoo def bu ñëwee Touba tourisme la genre tourisme lañ ko def bu ñëwee danañ yor seen i bagage ak seeni i kaala fu ñu wër fa mbedd mën nañu dugg fa xaxaloo ñenn ñi benn bundu kër gu sedd rek la ñuy jàpp lal fa seen basang teg attaay jigéen ñi toog nii góor ñu teg ñu xaxaloo ga teg yenn saa yi sax ñu yokk ca eh, eh, déglu loo xamante ne waruñu koo déglu xaxaloo ña nga ca làmb ja ña nga ca bëre ba ña nga ca football ba loolu la ñuy wax ba màggal gi jeex ñu ñeneen ñi ci politique bi kii laa àndal kii laay paranel non kii la paranel kii kii nangam kee nangam kee nangam loolu mooy seen débat du jour ba màggal gi jeex ñu ñibbi ndax ñooñu wuyu nañ sëriñ bi ci ni mu leen sant loo yàlla déedéet. kon dafa am kayfiya dafa am méthode buñ ko war a defee loolu nag dañ ko war a jàngal nit ñi ndax nit paas xaalisam déplacé diggante dëkk ak dëkk ne damay santi ji sëriñ Tuubaa yàlla ci besam bi ñëw ay bàkkaar yi neen nga fiy def ba ñibbi jot nga ñibbi ne sant nga yàlla yaa ngi nax sa bopp kuy tilime fa ñuy fóote nag doo gaaw a set ku tilime fa ñuy fóote doo gaaw a set te fii dañ fiy fóote kon ki fi ñëw dafay war a setee yóbbaale fi ay njariñ mais waru fee tilime kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax bu jàpp ni cant gi mooy ñëw rek dugg naa benn barab dugg naa ñaari barab ziyaara ne barab be ziyaar sama màggal mat na léegi après lu ma neex def rek ci journée bi ba ñibbi jot ma ñibbi nga jàpp ni sant gi mat na ndax dugg nga barabu sëriñ diw dugg nga barabu sëriñ diw dugg nga barabu sëriñ diw cant gi na déedéet noonu kon dafa am benn yoon boo xam ne moom lañ sëriñ bi tegoon mooy bi sunnati mooy nañuy màggale cant googu ndax màggal la ko tudde kon màggal cant googu ci sunna def ko défini sunna première chose mooy bu la benn farata raw yow mi màggal si di sant la tubaay Tuubaa yàlla bu la benn farata raw suñ borom dafay wax ni jaam bi gënumaa jege du ma gën a jege lu ëpp ci man li ma farataal ci moom lu ëpp ci man li ma farataal ci moom waaye yow mi nga xam ne topp nga bernde yi topp bernde yi tisbaar julliwoo ko tàkkusaan julliwoo ko timis julliwoo ko daanaka sa juróomi waxtu yëpp daanaka tegale nga ko te ni da nga doon sant si yàlla kon war nga xool méthode bi nga doon sant sa yàlla kon ñu takkoog ndigalal yàlla yi comme ni mu waree ngir jëmmi suñ borom waaye bàyyi tere yi yi la yàlla tere yëpp ci màggal gi nga moytu ko fu jaxasoo góor ak jigéen am nga moytu bu jaxasoo góor ak jigéen am ci jataay yi mi jigéen solol col goo xam ne moom la la lislaam gërëm loo booy ñëw ci barab booy mën a dem fa nga nekk ak barab boo mën a dem solal lu lislaam gërëm boo mënee jàng alxuraan dee ci sax boo mënu ko jàng xasida wala nga yor sa kurus di zikar wala ngay tudd yàlla wala ngay def istixfaar lépp lu yàlla tere nga ba ko kon euh, niñ koy sante mooy ginnaaw ba nga saxalee li yàlla farataal ci yow li yàlla sant ci yow mooy dangay def nag nawaafilul xayraat loo ci mën a def nga def ko mooy li ñuy wax ndolleenti yiw ba ci njëkk biñ ci njëkk indi mooy tilaawatul quraan jàngaal quraan Sëriñ Tuubaa wax nañ ne inna tilaawatal kitaabi mulku wa huwa liman yabghi najaata fulku jàng alxuraan suñ ko waxee nag day jaaxal nit ki ci jàng alxuraan di ko dundoo day am pouvoir ci àdduna parce que day am day am tuma niinul xal mooy xol bu dal lay am conscience tranquille loolu mooy saada fi ndool nit a ngi nekk président wala mu yor alal judul jeex mais amul saada ku dem ci tilawa yi ñuy jàng di nga ca ges uude ba ak borom alal ba borom alal bi dëkk ci wetam guddi gi du nelaw ndax konte xaalis beeg marché bi am naa bénéfice am naa lee am na lee uude bi moom bu wàccee ma ngay way ma ngay kontaan ak njabootam ngir lan dafa am saada ndax dafa am tuma ninul xal maanaam mu ñëw yëkkati benn bis rek un million may ko da koo ñëw ne ko ndax xam nga looy gagné par jour mu ne ko man de bokkuma ci ñi xam li ñuy gagné par jour man daal xanaa ma xëyee sama añ dina mat sama reer mat ma am ataaya am café Touba su ma xëyee sama neex na journée ba neex na mu daal di jël un million ne ko maa la may un million bi uure bi daal di jël un million bi def ci saagam tëdd bu tëddee ba guddi rek mu ni bërit daal di daw xool pukos bu xool fa ulis bu mu defoon te un million bi tijji xool lamb lamb ah un million baa bi daal dem mu toogaa tamam yàgg dékki-dékki ne bëri bu liggéeyee ba ba ba yenn trente minutes ci atelier ba daw ñëw ci kër gi ubbi walis bi lamb un million ah un million nga fi daal delluwaat mujj daal uude bi mënatu a mënatut a nelaw guddi mënatut a nelaw bëccëg ngir sàmm un million bi mu toog a toog ba yàgg daal mu ni daal man ndekete man damaa defoon ci saada mu ngi ci alal ndekete sa kaw la texee di la daal dem ca borom alal ba ne ko sa un million nii ba ma ko joxee laa gëj a am jàmm bam ma ko joxee laa gëj a am dal kon delloo naa la sa un million daal di dundaat ca lam kon ne woon ca lam nekk wax nekkate nekkate mulku googu Serigne Touba wax inna tilaawatal kitaab bi mulku pouvoir boobu nekkul pouvoir bu ñuy gis ayaanan waaye tuma ninul xalb la ndax xol bu dal mi ngi ci jàng alxuraanul karim sooy jàng alxuraan di jëfe li la ci alxuraan diglee nga di ko jëfe di la bàyyi li mu tere am da ngay am yaqiin da am yaqiin da ngay am xol bu dal loolu nag mooy pouvoir ki am pouvoir mi ngi ragal bés bu ne ñàkk ko mi ngi def lu ne mi ngi def lu ne musiba yu ne mi ngi ciy dugg ngir sauvegarder pouvoir boobu ngir mën a am pouvoir boobu du nelaw gudd du nelaw bëccëg fitna bu ne mi ngi koy def teg boppam di ko teg nit ñi ngir sauvegarder pouvoir boobu yow miy jàng alxuraan am nga pouvoir bi ci ci àdduna di ko am ci àllaaxira waaye ki bëgg a mucc àllaaxira mu ni mooy gaal gi ndax li la yàlla digal mi ngi ci alxuraan da koy jëfe lim la tere mi ngi ci alxuraan danga koy bàyyi su ko dee boo ëllëgee da ngay jabal rek daal di tàbbi àjjana moo euh, moo tax mu ne waat ilal jinaani duna ray binil kitaab yaquudu man laazamahu bila itab ba ajjana rek awma ci sikki sàkka kiy jàng alxuraan alxuraan da koy wommat ba dugal ko ajjana kon moo tax Sëriñ Tuubaa ne la booy sant le boo may sant le yàlla ci bis bi ginnaaw bi nga matalee say farata alxuraanul karim jàng ko bu baax baax a baax mais da ngay gis ñu bare bare dañuy inversé sax affaire bi am na ñoo xamante ni fi mu toll Sëriñ Tuubaa rafa anil qur'anu rafa an xafada man shaahu taqaddumi fan xafada alquran may lépp yëkkati na ma yëkkati goo xamante ni ku mu yëkkati gi naqari sax suufee waale nga yow nag yow toogee yenn saay ñu jox la alquran nga xaw koo delloo wala négligé ko ni war ngaa yëkkati leneen ci kawam yaa ngi juum yaa ngi soo inversé doo jariñu da ngay yàqal da ngay lor sa bopp kon alquran moom ngay jiital ca kaw waaye ba ca des mooy xasaayid yi nga teg ko ca nga teg ca xasida yi moo tax nit ñuy màggale benn jaanib bi na ma leen dañuy màggal ñetti jawaanib la dinañ ko leeral ci tëjtali mais day xool benn jawaanib bi la ñuy gën a tarkiis ci la ñuy gën a tarkiis mooy jaanibul itam bi rek ci la ñuy gën a tarkiis mooy mooy bernde loolu jàpp nañ ni ku bernde rek yi ci des yëpp boo ko deful màggal nga kon jaanibu bernde bi rek ci la ñuy gën a tarkiis te ay jawaanib la te xasida yooyu Sëriñ Tuubaa digal ñu ñu di ko jàng ca bés bi pouvoir yu bari la ñuy jox darajaat yu bari la ñuy jox tuwassilu aqlaami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abqa kama agna sama xasida yi day eggale nit ci yàlla te du jaar sax muy def xalwatu parce que li tax mooy yaa ngi kañ suñu borom yaa ngi jullu ci yonantu bi yaa ngi tudd yàlla màggug yàlla gi di kañ suñu borom te santiroo ko soxol benn benn riya du ci am benn suma du ci am yaa ngi def lu baax guddeeg bëccëg te sentiroo ni yaa ngi koy def moo tax nga egg ci yàlla parce que ñu baree bari li leen di gàllankoor mooy dañuy def ay ibadaat ba pare maanaam di ko dégtal nit ñi wala bëgg nit ñi yëg ko su ko defee ibadaat yooyu tuyaaba yi ñu si war a am duñ ko am ndax ñi mi ngi am li ñu tuddee suma wala riya waaye jaamu yàlla gi nga xam ne da nga koy def ba pare te yàlla kese tax jaamu yàlla goog dalay lay ci yàlla directement wa bi qasaidi rabbi rabbi kulla mutaaliin li waji rabbi aw kull mutaaliin li waji rabbi sama xasida yàlla yàlla nañ ci yar képp ku ko jàng yàlla nañ ci defar képp ku koy jàng kon xasida tam dafa lay defar dafa lay fóot ba nga set kon moo tax jàng ko ci bis bi lu ama am solo njariñ njariñi neen moo si nekk kon muy ñaareelu étape màggal gi beneen étape bi ci ni ñu ni war a santalee sëriñ bi waaye yàlla wuyul ko ci cantam gi mooy itaamu taam bi am mooy jox nit xéewal mu xéewlu te suñ borom wax na ni wa man axyaaha fa ka annama axya nnaas jamian képp koo xam ne benn nit dundal nga ko mel nga ni dundal nga ni ñëpp waaye képp ku faat benn nit mel nga ni faat nga ñëpp kon foofu dañ fay dégg ni maanaam benn nit nga jox ko mu lekk ba suur kenn xamul tuyaaba yi nu mu toll da ngay xool nit ñi ñaata million la ñuy financé ci leel doomu aadama yi ñu lekk ba suur depuis bu weeru safar gi terew ba nëgëri loolu nag da dafa war a doon loo xam ni tamit lu war am continuité la nga xam ni dimbalante dafa war a sax ci nit ñi ñu xam ni social noonu la àdduna war a doxe noonu ñu ko Serigne Touba digalee Serigne Touba digalee radiyallahu taala anhu noonu la àdduna war a doxee maanaam ñi am dañoo war di dimbali ñi amul dañoo war di joxe ñam fu ñu toll dañoo war di dimbali ñi amul fu ñu toll kon ginnaaw bi màggal gi weesoo dafay defaat loolu ci sa xol defaat ko ci sa ruux ba bu ëllëgee da ngay attan na jël ñam di ko jox nit waaye dangay ngay na dimbali nit ki nga xam ne am na jafe-jafe kon mooy joxe ñam yonent bi sallallahu benn nit mas na ñëw ci moom dugg suñ boroom xamal ko ni ko génne ko ndax nitu sawara la te nitu sawara du sax ci sa kër yonent bi génne ko boole gi ngëb ci tàndar ma jox ko waa ji génn di dem bi muy dem di jëfandikoo tàndarma ji ba mu des benn doomu tàndarma benn nit yalwaan ko ngir yàlla damaa xiif doon ñaan lu ma lekk ngir yàlla mu jël tàndarma bi ko desee xar ko ci digg bi jox waa ji genn wàll gi jël genn wàll gi sex suñ borom daal di waxaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waajooju nga génnewoon sa kër demal nga indiwaat ko parce que fa ma bindoon turam ci sawara far nañ ko def nañ ko turam ci tey ci ñii nga xam ne ñoom la yàlla yërëm ci la bokk ñi yàllay tàbbal àjjana bu ëllëgee ci la bokk yonent bi yéemu yàlla daal di koy nettali xissa bi ni mu demee xamal ko ne ko daggatu tàndarma boobu ngi mu jox nit mu jëfandikoo ko ku xiif ngir sama jëmm ji moo tax ma rusal sama bopp di ko mbugalaat boo léegi moo tax ma yërëm ko dugal ko àjjana moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra maanaam ragal leen sawara moytu leen sawara donte dogatu tàndarma ngeen di jël di ko saraxee ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala kon ki nga xam ne waxuma la dogatu tàndarma waaye dafa jël xaalis bu bari jënd gëléem wala mu jënd nag wala mu jënd ay xar ay ginaar jënd boisson lu ne luy bégloo doomu adama rek mu jënd ko jox ko doomu aadama boo xamee ne dafa yendoo jàng alxuraan yendoo jàng xasida yendoo tudd yàlla ba xolam tooy léppam tooy ruuxam tooy xip mu jox ko mu xéewlu ba suur am na ci ñoo xam sax dañ ciy teg joxaat la paas boo ñibbee kon kooku yaakaar naa ni ba ja ca nekk kenn xamul nu mu toll kon moo tax Sëriñ Tuubaa njariñi neen la ñuy digal lépp lu ñu digal ñu ko defee nam ñu ko sante woon njariñ ne la mais nag nañuy bàyyi xel ni seytaane toujours ci ndigalal Serigne Touba yooyu nga xam ne day jagal àdduna jagal àlaxira da ciy làqatu di la détourné ba doo ko defee ni ko Serigne bi bëggee moo tax loolu war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax moo tax yi ngeen di dégg mu ci commencé am ak yu bëree bëri ñun murid war nañoo taxaw di ko xeex parce que foom mu dérapage yooyu fa muy jëm baaxul ñu doon léegi ñu ngi yëg ne am na ñoo xam ñu ngi ci def ay théâtre ci wax loo xamante ni nekkul du lu war nekkul du lu rafet di di jox image màggal gi beneen image boo xamante ni bokkul bi te boroom taxoon mu jóg. di nga ñeneen ñu ciy wax loo xamante ni bokkul ak li taxoon borom jëkkati ko li taxoon borom digle ko borom li mu ko diglee mooy sant yàlla gi lépp jaamu yàlla. gis nga niñ ko détaillé ñett yi nga xam ne moom lañ ciy wax yëpp lépp jaamu yàlla te ñett yi sëriñ sëriñ Fàllu moo ko détaillé woon nii. beneen ba ca des mooy ziyaare ji gaañu baax ñi mooy kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ku ci nekk ñoo ngi ca mën a siyaare wala ña yàlla dëppale nga jaxasoon ñoom nga dem siyaare ji leen wa zur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhum lillahi jalla kulla xiin siyaare ji boroom xam-xam yi ak gaañu baax ñi loolu Sëriñ Tuubaa digle na ko te loo mën ci teral leen loo mën ci liggéeyal leen nga def ko ngir jëmmi suñ borom wajabat mahabbatiya lil mutahaabina fiya wal mutajaalisina fiya wal mutazaawarina fiya suñ borom nee na ci xadisul qudsi sama mbëggeel war naa ko warlul naa ko ñi bëggante ngir man ñi ziyaarante ji ngir man ngir toog ngir man kon bu kooku mun la demal ziyaara ji waaji baax nga ziyaara ko yàlla boole leen bëgg kon loolu tam njariñi neen daf caa nekk kon ci gis nañ ne noonu nga xam te ne ni sëriñ Fallou ma ngi ca tegoon maa jara majraha ak yi nga xam ne taxaw na taxawaay yii ci yu baax yépp boo ko mën a def ci màggal nga def ko kon su ko defee ñu góorgóor noonu ko sëriñ bi santaanee ñu góorgóor defe ko noonu mais dañu gis ne benn jaani bi moom ñu bari dañ koy matal mais beneen jaani bi war nañoo xool niñ ci taxawee yeneen jawaani bi mooy war nañoo fexe ba kër gu ne borom war naa am fulla ju toll ni na muy fexee ba amu nag fexe ko ba amu xar fexe ko boisson beeg ndox mi dara manqué wul mu fexe alxuraan tooy xépp ca kër ga fexe ba am ñoo xamante ne ñëfa ñëw ci gan mu tas kaamilam woote ku ci man ci alxuraan ji toog ñu def ko benn jël sa bu am solo jàng alxuraan jàng xasida ba añ bi pare ñëpp xéewlu su ko defee bu ñu yeewee ku ñu yeewee su ko defee maanaam jaanib yëpp day mat ci sa kër na ko Serigne Touba bëggee woon day mat ñi nga xam ne ay alxaat lañ yore ci mbedd yi ñi ko nekk ñi nekk ci jumaa ji ñi nekk feneen ku ci nekk ñu def ay xalxaat yoo xamante ne xalxaatu dikr lay doon ay jataay yoo xamante ni dañuy lal ay basang teg alxuraan ji di ko jàng bu ñu jàngee alxuraan ba ba ba làmmiñ ñu tooy xëpp ñu génn xasida yi ko durus maanaam tudd yàlla ñi mënul loolu yor seen kurus nekk ca ginnaaw di tudd yàlla su ko defee bu xéewal jotee ñu jox ñëpp ñu xéewlu ku ci yeweeku yeweeku loolu yaakaar naa ni buñ fexee ba yëpp benn fas wana booy bu ñu ñibbee ñun ñëpp ay xéewal la am tey ak yokk lay doon ci réew mi ak jëm kanam lay doon ci réew mi kon daa mel ni maanaam foofu rek lañuy tënk suñu kàddu di sant ñëpp di leen gërëm di ñaan suñu borom tabaraka wa taala ci yërmandeem ak mbaaxam may ñu fekkee ko ay at yu baree bari yàlla yokk xéewal yi yokk wér yi yokk tawféex yi daayiratu ansar diinil islaam yi ñu ñaan mu gën a jëm ci kanam euh, ci kanam euh, li nga xam ne moo taxoon Cheikh Murtada sampoon ko yàlla nañu yàlla may gën a kàttan ñu gën a bàyyi sas wi ba dara bana booy su suñu jëwriñ tam muy sëñ Mamor yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën a wéeral cëram ndax li ñu liggéey ci lislaam bi liggéey bu am solo mi ngi yokk diine ji yokk bu am solo mi ngi yaatal xam-xam yaatalin wu am solo ndax tey bu def bu modernisé wul woon euh, maanaam jàngukaay yokku ca tey ak ak lii situation bi ñuy dund yaakaar naa ñi nga xam ne tam dem nañ ba seen jàng war a continuer dinañ jaaxle lool waaye gis nga université bi mu indi nga xam dafa ñëw ci waxtoom ak yeneen i projet yeneen i projet loolu ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla gën koo dooleel kàttanal ko mu am ci ndam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin dëgg cant buñ ko doon euh, mën a jàngat ci biir mbindum sëriñ bi euh, la ca jëkk rek mooy yow mi sant nga am yéene ak bu set wicc ci sant yàlla waaye itam cant googu itam mel na ni feeñ na ci bindum sëriñ bi ne euh, bokk na ci li tax mu doon dëgg-dëgg cant mooy nga seedeel ko suñu borom nga seedeel ko yàlla seedeel ko yàlla ci tudd yàlla tudd yàlla ni ñu ko waxee léegi ci lii ñu def nii bokk na ci li ñu seedeel suñu boroom mooy tudd fàttali fàttali nit ñi yàlla ba tax ñu xam ni kon ku jara sant la kon tudd googu nga xam ni nit ñi dinañ ko war di tudd di fàttali yàlla nit ñi di ko di ko di ko di ko fàttalikuwaat loolu itam bokk na ci ni nga xam ne sëñ bi noonu la waxee ni ak cant dëgg-dëgg loolu da ciy bokk waaye itam te waadox koo xam ni maanaam wàcc sa bopp waaye bañ a bañ a jaay sa personnalité waaw wàcc sa bopp ci cant gi waaye bañ a jaay sa personnalité ni nga ko waxee itam ak sellal sellal li ngay def nga xam ni ni ko yàlla waxee ci alquran wa ma umiru illa li yaabudu allaha muxlisina lahu diin nga xam ni lépp loo xam ni yàlla digle na ko ci ay jëf ñu di ko jëf euh, lañ ci gën a war a bàyyi xel mooy sellal gi sellal gi wax nga itam ni dafa war a nekk loo xam ni buñ ci jógee warul yem rek ci ñëw nañu fekk si màggal gi euh, ànd ak sëñ bi ci ndigalam yem ca waaye dafa war a nekk loo xam ni buñ fi jógee dañ ko war a yëg yëg gi mooy waral mu nekk loo xam ne dafay am istimraariya ñu di ko continuer di ko def euh, def gi itam ajuwul rek ci ni nga ko waxee ci benn jamono waaye kon war na nekk fii kulli zamanin wa fii kulli makaan jamono bu ne cant war na waaye itam barab bu ne itam cant war na leeral nga ko itam wan ni sëñ bi cant da koo séddale ci ay daraja daraja bi ci gën a kawe bi ci njëkk mooy nga def ko ngir jaamu yàlla ngir màggal yàlla ñaareel bi itam nga def ko ngir euh, jëfe jëfe ndigal loo xam ni yàlla moo ko digle comme ni ñu ko waxee léegi ci biir alquran waaye itam ñetteel bi nga xam ni mooy bu mujj bi mooy nga def ko ngir càkk sàkku ci ngërëmal suñu boroom àdduna ak àllaaxira fi nga jeexale mooy ni nga xam ne noonu la sëriñ bi wooyee taalibe yi ngir ñu santalee ko yàlla mooy ginnaaw ba ñu war a sukkandikoo ci ponk yooyu ñu tuddoon léegi euh, ñu def ko ci ni nga xam ne noonu la ko waxee léegi mooy jàng ak jàngale ak jàngale maanaam jàngale mooy comme lii rek bernde gi nga xam ne moom tuddee berndey ruu mooy fexe ba li nit ñi manqué ci li ñu war a xam ci yu mel nii ñu ñu leeral leen ko jàngal leen ko dolli leen chargé waat leen ba nga xam ni buñ fi jógee itam loola day des ci ñoom waaye itam ñi di ko dund. Euh, su ko defee ak bernde comme niñ ko waxee mu xam ni bernde goo xam ni niñ ko xamee ci euh, wàll wi nga xam ni moom la ñëpp xam ak bernde gii nga xam ni mooy bernde xam ni ko sëñ bi waxee nga xam ni mooy jàng alxuraan ak euh, bernde ci xam-xam waaye itam ziare comme ni ko waxee ci euh, ci ci ci ci mbindam euh, kon su ko defee xam naa ak njëkkanteeg waxtu wi ñu ngi sant bu baax mbokk yi ci tomb yi ni ñu ko leerale ndax oustaz xat fàkk ñëwal nañu ci tomb yi maanaam leeral ak cant dëgg-dëgg mooy lan ci alxuraan ak ci sunna joxe ci ay misaal ci ay yonent ba ci yonent bi nga xam ne sax mën nañu wax ni mooy sayyidu shakiri ndax afala akuna abdan shakuran kon wane na ni yonent bi moom mooy sangub mboolem kuy sant moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, su ko defee itam oustaz Moussa ñëw leeral ñu sëñ bi moom ni mu taxawe woon ak ni mu déggee sant ba leeral ko ci mbindam waaye itam mu wëlbatiku jiitu ci ñëpp ba noppi woo ci taalibe yi ngir ñu santale ko yàlla ci anam bi nga xam ne noonu la ko sëñ Moussa leerale kon ñu ngi koy sant bu baax di gërëm ñu ñëwaat nag ci ubbiwaat beneen beneen page muy euh, contribution yi ndax waxtaan wi dafa am solo euh, ba tax ñu bëgg a joxaat meneen mbokk muy al oustaz Momar di directeur bu institut Al Azhar bu ngay Mékhé moom itam mu ñëw incha allah indi participation ci waxtaan wi incha allah buñ noppee jox oustaz euh, Cheikh Mbacke Ndaw moom it mu ñëw gën a dolliwaat ci waxtaan wi incha allah kon oustaz Mor. ñu jox la micro bi rek su ko defee nga yow it indi euh, loo xam ne rek dana gën a dolleekuwaat ci biir waxtaan wi rawatina tomb bi ñu waxtaanee muy sant yàlla gi nga xam ne Serigne Touba moo ko digle ngir ñu santale ko suñu boroom ci bisam bu màgg bi nga xam ne mooy 18 safar. bismillahi rahmani rahim. allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain wa radiyallahu an shaykhina abdillahi wa xadimi rasulihi ridan la suxta ba'dahu wa nafa'ana bi barakatihi amin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida وجرني لرضاك ورضا خير الورى حتى أصير مرتضى mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di ci kàddu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di ndokkeel ci bis bu mag bii ñu dëgmal te tàbbi ci di tàmbale ziyaara bi ci a cheikh mouhamadunil muntaxa sëriñ tuuba ñaan suñu borom mu dolli ko dimbali dolli ko kàttan ba mu eggale yéeneem ci liggéeyal way juróom ak maamam ju tedd ja di ziyaare bu baax a cheikh Mamoor Mbàkke Murtada mi nga xamee ni moo taxawee taxawaayu way juróom wu tedd wa liggéeykatu yàlla bu mag ba jël taxawaayam ba suba ak ngoon guddeeg bëccëg ngir fas yéene yaa waasian wasaatali bi murtadaaja mu def ca jéego bu kawe ah di ndokkeel daairatu ansaaru diinil islaami suñu jëwriñ sëriñ Cheikh Mbàkke bu ñu ko tuddee mu yóbbaale ñépp ah di sant bu baax mbokk yi doon leeral tomb bu am solo bii al oustaz xat fakka sëy al oustaz Moussa Wade ci leeral ak laaye biire gu am solo gi ñu indi ci tomb bii daayira bi tànnoon ren muy cant ci liggéey ak ci njàngaleem Seyxuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul a ah, mu mel ni xam naa waxtu wi li ci des bëreetul dañuy tënk rek ci ay minutes yu gàtt ngir rek gën a rafet lu mbokk yi li ñu indi ndax lépp mat na lépp rafet na waaye lu baax bu gënee bareet daal di gën a gën Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim Cheikh Ahmadou allahu taala wa taala may na ma ci àdduna bii loo xamee ni ma fi nekk di ko lim duma fi nekk di ko benn bennal waaye damay takk sama digg rek laxasaayu ngir fas won ko moom yàlla ni ko may nga ma lu bari wahaba lii fi dunya maa laa azkuruhu bal askuruhu fiha yàlla may na ma loo xamee ni damay takk sama ndigg laxasaayu jéebaane ko ba àdduna bépp yëg ni maa ngi won sama boroom li defal ni ko defal nga ma lu bari defal nga ma lu rëy defal nga ma lu yaatu jéebaane googu nag xam ngeen ni moo waral woote bii tey ba tey àdduna bépp ñi ngi ànd ak bis bi tey di santale Serigne Touba boroomam ñoo ngi Sénégal Afrique gii ñu nekk Afrique gii ñu nekk nga dem Europe nga dem Amérique mboolem continent ci àdduna bi yëpp ña fa di ay jullit tey ñi ngi laxasaayu ñoom ñëpp takk seen ndigg ngir santale Serigne Touba boroomam kon nee na day sant boroomam ci li mu ko defal ci àdduna waaye du fi nekk di lim ba ëllëg yowmal xiyaam loolu di ñu junj ni kon moom Cheikhul Xadim mooy alwaarithul kaamil li rasul sallallahu alayhi wa sallam moom Cheikh Ahmadou Bamba moom mooy héritier yonent bi di maanaam mooy ndonoom ci lépp ba fu yonent bi tegoon jéegoom rek moom dana ñëw teg fa ab jéegoom. xam ngeen nii bokk na ci saar yi gën a gàtt ci alxuraan saar yi tudd suratul kawsar inna aataynaaka al kawsar bu ñu xoolee saar yu lépp suñu borom dafay junñ ngën ji mbindéef di ko sant ngir mu sant boromam ci lim ko defal inna aataynaaka al kawsar ginnaaw loolu lépp defal naa la ko nag kon fa salli li rabbika wanhar kon jugal nag nga julli sa borom te nga loj te nga loj muy ñaari taxawaay benn bi mooy julli xam ngeen ni azamu ibadatil badani mooy asalaatu yaram cër yi doomu aadama jaamu yàlla gi gën a rëy gi ñu defal yàlla mooy julli suñu boroom sant ko loolu mu di cantaat delluwaat ci boromam beneen bi mënu ko wan xari na loj na loj bàyyi ma su ko defee mu jur lii mbokk yoon waxtaan te mooy nanga nga berne na nga yaatal xéewal loolu di junjuri kon anzamu ibadatil maali mooy an naxru alal alal jaamu yàlla giñ ciy defal yàlla gi gën a rëy te ëpp solo nee na mooy nga loj mooy nga tuur deret ngir ngir njaboot suñu borom gi ngir doomu aadama yi ngir jullit ñi berndeel leen waaye bégal leen la tax lu tax ndax suñu boroom daf koo jox alkawsara moom sallallahu alayhi wa sallam loolee nag moo taxoon Seexul Xadim moom itam bi ko suñu borom defalee liggéeyam bu yi bii nga xamee ni burul ko nag dem ni kon wala kon wolof nasaraanu te billaay kon ñëpp dem niiraanu mu ni kon jëf ju rëy jooju lim koy mën a jubale rek mooy mu sant boromam te woo ñëpp ñu sant la ko boromam tabaaraka wa taala loolu di junj nag ci ñi taxawaayu cant googu ak dundam gépp ak dundam gépp du ci bàyyi dara yaf na lazi min umri qad baqiya fi sukri wal xidmati insha rabbiya nee na sama dund man Cheikhul Xadim li ci des lépp dinaa ko jeexal dinaa ko jeexal bu soobee suñu borom ci di ko sant ak liggéeyal ngeen ji mi kon bay na sukri wal xidmati la wax ni moom dundam jëpp foofu la koy jeexal daal nag woo ñëpp nag ñu leen kaay leen sant le ma yàlla waaye kaay leen ñu ànd liggéeyal ngeen ji kon ndekete tey tey ji ñaari taxawaay rek moo des tey ci ab jullit ci ab taalibe digganteem ak Seexul Xadiim digganteem ak suñu boroom digganteem ak ngeen ji te mooy sant yàlla waaye mooy liggéeyal ngeen ji Sëriñ Tuubaa nag dafa tànnoon li ñuy tuddee tent physiquement tent physique gi la tànn moom la gën a jox yitte tent oral gi ni ko mbokk yi leeral léegi xam ngeen ni tent physique bi mooy sa cër yëpp àndandoo sant cër yëpp nag benn bu nekk rek di won sa boroom won boroomam ni ko kat li taxoon nga jox ma cër bi muy loo xamee ni mënu ma ko woon mu ko amaloon sama bopp kon dinaa la jubaleel loo xamee ni dinaa la won ne lii yaa ma ko defal te lottu naa ci defal ko suñu borom sama bopp man mii nga xamee ne mën nga defal loolu kon cant ku nga xamee ni ay cëru koy def ci ay anam yu wuute moom la sëriñ bi bind moo tax ay bindam li ci ëpp baatu sukkur nga ciy fekk muy baat boo xamee ni la mu ëmb lépp mooy léppi doomu aadama léppam daa war a yëg ni suñu borom defal na ko xéewal gu bare bare bare bëri su ko defee su boobaa dana jombati di yéene wala muy wax wala muy am melokaanu comportement loo xamee ni suñu borom gërëmul loolu xam ngeen ni ay yoon ci histoire woo nañu sëriñ bëgg koo dévier ci ni mu bëggee woon bëgg koo dévier dugal ko ci beneen lef bu bokkul ak bi mi taxoon mu tax mu jóg waaye loolu lépp keroog ba muy daj ji jéng ba xaalu li yarkan li abwaabi salaatini booba mu ngi bëggoon woon nit ñi ni leen xéewal gi ñu suñu borom defal jomb na ñun nag ñuy jël keneen di wone ni def na dara ku suñu borom tabaraka wa taala kon mbokk yi Cheikhuna ah, Ahmadul Xadim mi waxoon ni moom suñu borom daf koo dimbali tabaraka wa taala defal ko ndimbal loo xamee ni moo ko may ba mu am victoire ci noon yi noon yi ànd ak moom 33 ans ñu jàpp comme prisonnier yóbbu ko ci géej gi yóbbu ko gànnaar yóbbu ko ci yéen résidence surveillée ci njaareem musul am moom boppam ci dara waaye ba ca gën a nag muy juróom-ñetti at ak juróom-ñetti at yu manqué yi ci géej gi mu daj fa lu nekk doon fa liggéeyi te dem yee ko ji gànnaar ca Sarsara mu ne nag loolu lépp daal moom sëriñ bi rusati na rusati na di yéene wala muy xalaat wala muy wax wala muy melawoo loo xamee ni suñu boroom gërëmul loola gërëmul loola mu ne kon na invité ñëpp ci ñu taxaw nag fas yéene santale ko boroomam ci taxawaay boobu xam ngeen ni bu ñu demee ci alquranul karim dañuy tënk ndax waxtu wi di des bëreetul te oustaz Cheikh Mbacke mi ngi taxaw sëñ Cheikh Mbacke ndaw xam ngeen ni boo demee suratul xalam yi xissatu ashaabil ashaabil janna ashaabil janna inna balawnaahum kama balawna ashaabal janna is aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnuun fa fa mu mujje mooy fa taafa alayha taifun min rabbika fa asbaxat kasarim maanaam ñàkk a cant ñàkk a sant ñàkk jëfandikoo sant gis suñ Tuubaa woote éwitu ñëpp moo waral suñu borom asxaabul janna moom yi suñu borom fayee leen mbugal mu métti moom ñoom ak njaboot lañu wan àndoon ak seen waajur daan bay bay lu yaatu saa bu ñu bayee mu nangu dugub ji nangu mboq mi nangu gerte gi nangu lépp nangu su waree nag bañ war a góob seen waajur dafay wax ni nañu woo miskin yeeg woo fakir yi ñëpp ak way néew dool yu ñëw jël seen wàll ndax am nañ ci wàll ndax yàlla moo ni na ngeen jox na ngeen génn àq suñu borom waxtu ngeen koy góobee seen waajur tàggat wax ànd ak ñoom ci loolu bi seen waajur génnee àdduna nag ñu daal di réunion ñoom njaboot gi daal di ni suñu waajur nag li mu mënoon ak li mu yéene woon ak li ab xolam attanoon ñun suñu xol bi attanu ko ndax ñun dañoo bari ginnaaw dañoo bari bu ñu fi nekkee bu ñuy góob tool bi di woo miskin yooyu su boobaa mën nañoo am problème kon baatu génne ay asaka ay yooyu moom ay saraxi miskin nañ ko teg ci suuf léegi daal bu tool bi ñoree nañu xaar ba ker gi ba euh, suuf sedd ba mu guddi kenn du ñu yëg ñu ndànk ñun dem jël suñuy ngóobaan ak suñu yëpp dem ca tool ba góob ko lépp denc ko balaa nit ñee yow fekk góob nañ tool ba yóbbu ko loolu mooy seen yéene daal di wàcc nag fa leen suñu fa leen seen waajur wala tegaloon fan lañ mujje keroog ba ñu yéenee ba def sément bi ba préparé suñu borom nag yabal mbiram ci guddi gi fa taafa alayha taifun min rabbika fa asbahat ka sarim mu mujj nag tool ba lakk ba ñuul kukk dëkk dem dëkk doom bi ñu xëyee agsi ci tool bi daan ni ñun dañoo jaawale yoon yi fiiru tool bi fiiru tool bi ñun tool bi ñu daan béy du bii waaye ka nga xamee ni mooy ka gën a tuut tànk ca ñoom ni leen man de waxoon naa leen lii awo ak lu teewoon ñu sàbbal yàlla lu teewoon ñu jëfe ndigal suñu waajur wa lam daan def te mooy woo miskin yi loola ak junj la boo xamee ni mën nañ ko wàcce tey suñu Sénégal gii daal di ko yóbbu ci asxaabul mataajiri asxaabul mataajiri wa ni maanaam borom njaay yi borom bitig yi ak marché yi xam ngeen ni ñaata yoon ci Sénégal ngay dégg ay marché yu tàkk marché nangam marché nangam tàkk na ñu ni courant baa ko taal ba branchement yu clandestin yi moo ko yàq te lépp li ko waral mooy dañoo génneetul àkk suñu borom dañoo sëndatul yàlla santuñ yàlla ci génne asaka ci génne li nga xamee ni moom la ñu war a jox muy néew ak miskin yi su boobaa nag yàlla daf ñu yóbbuwaat ci asxaabul janna rek daal di taal marché yëpp marché yëpp tàkk wala boog jurge yëpp ñu jàll ñu jël ko yóbbu su ko defee ñun ñëpp ñu commencé kenn ku nekk di yedd sa morom kon dafay mel ni sant yàlla dal mooy jaamu yàlla gi nga xamee ni ci la Seexul Xadim invité njaboot gi yëpp invité ci àdduna bi yëpp ngir lan ngir ñu mën a matal mbooleem jaami yàlla yi ndax mooy jaamu yàlla goo xamee ni jullee nga ca biir woore nga ca biir dimbali way néew doole dox ak mbokk lépp ngi ci biir tey jii ñaata ñoo bàyyi ko Europe ñaata ñoo bàyyi ko Asie ñaata ñoo bàyyi ko Amérique ñaata ñoo bàyyi ko ci biir àdduna ci biir Sénégal gii këri diine yëpp Sénégal gépp a ngi Tuubaa tey dox ak mbokk jokkoo saafonte nemmi konte jàngat mbirum jullit ñi ban problème lañ am ñun ñëpp ñu bokk war a jël ko solution googu cant moo matale mboolem jaamu yàlla yëpp kon loolu si loolu Seexul Xadim woote kon sëriñ Siiri du ñu guddal ndax Cheikh Mbacke mi ngi taxaw dañ doon dugg rek di ndokkeel mbokk yi ci tomb bu am solo bi ñu indi ñaan suñu borom daal li ñu fi dégg tey ci mbokk yii ci dëgg-dëgg cant ak li taxoon sëriñ Tuubaa sonn ci la taxoon mu laxas ndiggam takk laxasaayu fas doon ab cantaakoon ñu fa yéenee fexe ba doon loolu waaye nag teg ko ci ni mu ko bëggee teg ko ci ni mu ko jàngalee teg ko ci ni mu ko jàngalee bañ a topp coow li bañ topp yi nga xamee daanaka amul solo folklore yi day mujj leneen lay doon waaye nekkatul lu Serigne Touba digle kon daal dañ ne woon nañ dugg rek incha allah wane suñu tuuti ci li waajaloon bari na waaye nag dañoo xamal ni waxtu li ci bëreetul te it mbokk yi bañ bokk nañ cee barkeelu ñu ngi ndokkeelaat daayira bi. jaajëfal ci jéego bi ñu def ren dañoo innové waat liggéey bi depuis premier safara ba léegi ñu ngi def ay jataay di laajee biir mbokk yi. Touba gii de ak li wër Touba lu soree sori ba ca Kajoor ñoom ñi ngi gis seen bopp ci rajo UCAB FM bii ndax ñi ngi gis ni day li ñu ni ñu ni déggewaat màggal gi ak signification définition biñ ci amaat bokkul ak biñ ci amoon démb ba tax na ñëpp soppi nañ aw doxiin di sant la yàlla suñu suñu seexul xadim suñu borom melokaan woo xamee ni day tax seexul xadim gën a bég ca nam ko bëggee woon ak nam ko santaane woon kon loolu lañ doon indi rek di ko dolli ci li mbokk yi indi woon di wax wa aaxiru daawaana an contribution bi nga indi ci waxtaan wi am na solo euh, gën na ko yokkaat dayo bi nga xam ni euh, moom la amoon kon euh, ñi ngi lay sant bu baax di rafetlu itam kàddu yi ndax lépp delluwaat na ci mbindum sëriñ bi ci leeral rek cant wàccuwaay wi nga xam ni am na ko ci njàngalem sëriñ Touba ak Euh, taxawaay bi nga xam ni itam sëriñ bi mën nañoo wax ni ak dundam lépp ci ni nga ko waxee daanaka sant yàlla la woon. Euh, kon niñ ko waxee woon euh, noonu rek lañ koy ànd ak ndax noonu lañ ko baaxoo def at bu jot muy tànn benn tomb waxtaanee ko ci màggal gi ci initiative bi nga xam ni daayiratu ansaaru diin al islaam yi jël na ko mu nekk li nga xam ni at mu ne ci barab bi incha allah ñoom dana ñu def participation bu mel nii. ci wàllu lu jëm ci màggal gi rawatina ci waxtaane ko mu delluwaat ci xam-xam bu baax a baax